man tey ci suba ga sax bi ma déggee xibaar yi damaa jaaxal lool daara ji man kër sëñ Mourtala laa yaroo am fa fukki at ak benn sëñ Saliou laaj ma ko nee ko damaa bëgg mu jàngaleel ma mu andi ma ci kër gi kër kër sëñ Saliou la woon jox ma juróomi téeméer dong yoo xam ne dañ naan daw ak xiibun nee ma yóbbul ma ci kër googee ñu continuer foofa de jàngate buñ jënd kër ga mu boole ñoog seex bi ci cuun mu ñuy toggal la mat juróomi téeméer dong nu continuer ca dong noo deen jàngal bis bi may ñëw fii ci daara ji keroog sëñ Sall dafa def déclaration ci rajo jumaa ji ne képp kuy jàngat di boole naa la ak sëñ Cissé loolee nag sëñ ku mooteel moo war mbooloo mu bëri nii daara ñetti daara la ñenn ñi dañuy jàng xam-xam di wàcc ci kaw jumaa ji lañ nekk war na ñëw ñett téeméer nit ñenn ñi dañuy jàng alxuraan di wàcc di ñibbi ci kër yi mbooloo mi bëri na lool ñenn ñi dañoo féete ci biir internat bi biir internat bi boo ñëwee dañ tàndaloo ñaari yëf bu la neexee nga ne ci biti boo nga ne ci biir ñi newoon ci biir internat nag ci guddi fekk na maanaam boobu doo sëñ ci bëri julli ji nañ booy yéeg ci kaw dajji fenêtre yi biñ dajji fenêtre yi ñu xam ne buñ leen jéem a wax dara ñu gaañu ñu wax sëñ daara neen kon ubbi leen gune ñoom ñëpp dem li ma dégg nag ñu naan am na ñu ci faatu kenn faatuwu ci loolu moom dëgg ku ngeen dégg te mu ne am ku ci faatu nee ko kan la ak fan la loolu moom amut la ca toppaatit dégg naa am ñu naan cox la ñuy lekk loola xel nanguwu ko nit man da tabax ñaari daar yoo xam ne boo ko doon xool war naa mat un milliard nga wëlbatu da faratu soo ñëwoon ci biir magasin bi da nga fekk ceeb fekk fi dugub fekk fi maanaam ñebe lépp na ci biir daara ji loolu moom xel nanguwu ko la euh, fi mu ne jigéen ñi nga na ñooy toggal donga dañ leen di fay am na ñoo xam ne seen doom ñu ngi ci biir daara ji ba tey ku kuy miim loola di ko jeexi jaax na nga ñëw ci biir daara ji laajte xool ba xam ñun nag bu déggee ab xibaar ba balaa cee wax dara daa xam xaar ba am ca lu leer tooñ nañu nag ba fa tooñeem lool xam nga daaray jàmbur nga jékki-jékki ñëw ne juróom-ñaari nit faatu nañ fa te dara amu ca du dëgg loolu ay tooñ la. tooñ baaxul na gaa yi bàyyi tooñ tooñ baaxul waaw am na ci koo xam ne blessé na nag waaye kenn laa ci xam. moom kenn defu ko ci kooku it mu nga hôpital benn xure xure ku la waa Kër Sëñ Baara Doli yi la ñoom ñoo ko fi indiwoon. man maa ngi tudd moo Mohamed Dia dëkk tuubaa Asulem sama doom fii la doon jànge bi muy ñëw nag mokkaloon na sax alquran waaye daw daw ay daw yu metti moo taxoon ma andi ko fi bi ma ko fi indee itam eh, li taxoon ma andi ko fi gis naa ko te maag samay nawle ñoo ci bokk yam yaakaar naa ne. bi ma ko fee andi day beqi xam-xam bi ci téere sëriñ bi la la toll woon am na ci yoo xam ne sax jeexalu ko woon beqi na ba bind kaamilum bu njëkk ñaareelu kaamil bi mi ngi nii ñaareelu kaamilam mi ngi nii fi la beqee fi la bindee kaamilam bu njëkk ñaareelu kaamilam ñaareelu kaamilam mi ngi nii bu dee xam-xam mi ngi mi ngi ci risaala fi mu nekk nii defe naa ne ku kon taxawaaluwul bu newoon ci man di luma ko loolu bu newoon ci man mënaluma ko loolu te jàpp naa ne bëri na samay nawle yoo xam ne it seeni doom mënaluñ leen loolu du ñàkk man leen koo xamal ci wàllu xam-xam de benn nga amoo jot gi amoo moyen bi yàlla defal na ko ko mu nangu ko ñun ñëpp seede nañ daara ji nii mu mel ak fa mu dëkk moom fa mu dëkk ku ne dem nga fa gis nga daara ji li fi nekk ci ci ci ci ci tolluwaay kon ñëpp xam nañ ne ngir yàlla moo tax mu di ko def waaye nag ala kulli lislaam moom ci lii la ci li ci li ci lii lay faatu. tumurank ci la ñëw. man sama doom ñaari yoon la daan daw ñaari yoon déedéet déedéet bi mu ñëwee fii léegi ah, mos a génn da daan daw di dem Dakar ñaari yoon ma jëli ko Dakar yoon yoon mujj bi oto bi mu kondee ci buntu daar ji la ko wàccee sëñ bi la fi fekk bi mu duggeeg léegi génnaatu tey la génn bi mu génnee moo ma wool boppam ñëwal boppam ca kër gi mosuma ci moom loolu kon daal dama bëgg jullit ñi jëlaat seen matuwaay taxaw bu fekkee li ñuy woote dëggali ci ñoom lislaam bi kenn du ko sàmmal euh, kenn du ko kenn ku dul jullit ñi jullit ñoo koy sàmmal seen bopp ñu xam ne nitu yàlla kuy liggéeyal yàlla la li war ñëpp mooy kenn ku ne def ci sa loolu daal mooy li ma ci seet taxawaay bi weesu wut lii ndax ñun am am nañ ci lépp am am nañ ci lu newoon dagg nañ lépp ñëw ànd ak moom fi mu buñ jógee fii dañu ànd moom dem wuy ji ba ba fu ba fu lu waxtaan wi laaj rek ñu def ko incha allah ndax su borom daa doog a daara maay ki fi njëkk a génne sëriñ bi bi muy nekk ci université bi maa moom ñoo fa bokkoon nekk ba nekk fee ci alom nga ñoo fa nekk bi muy sanc fii weer laa fi def ak moom yàlla dogal sama njàng noppi kon maa njëkk a génne ci daara ji mhm. daanaka ñi fi ñëw nii ñi ngi fi gis ni man sama ginnaaw la ñu bootu ku matti moom seere laa ku dund ak moom laa koo xam ne wax dëgg yàlla fi mbir yi yegg fa mu ba fi moo dara ump ma ci xam naa ne daal lépp lu ko nit di waxal ñàkk xama tax nga di ko wax ndax daara yi ne ci Touba gi kenn xamu nu ku am yërmande la ku am ak maslaa la te képp koo xamee dégg nga kàddoom tey yëngu ci alquran maanaam mbir mii bi mu xewee jàppe nga ko muy sa mbir te jàpp nga ne kenn waru la fee jiitu mm-hmm. ndax mboolem ku fi ab sëñ ci Touba gi moom seq naa yow ko lëre rawatina kilifa yi nga xam ne ñoo moom dëkk bi kon lii yàgg na fee am yàgg naa am ci ci daara waaye nag bu amee lii dimbale askan wi mooy ñëpp dal beneen bi ci topp dem ba fa mu xewee nga xoolal sa bopp ndax mag ñi dañuy wax ne walaysa al xabaru kal muayana nit ki lim teg bërëm bokkut ak li nga dégg nem ci mbedd mi mm-hmm. yéen xam ngeen ne ñi fi teew ñëpp kenn ku ne ci ñun lim doon dégg bi mu ñëwee fi xam ne ne esek am na ndax dara du ci dëgg ñu jéggal ma ci kàddu gi kon am na ci way jur yoo xam ne ñi ngi dégg déggandeem ak yi ñuy jàllale li ciy firnde ji nga xamee ne maanaam moo mën a teggi tuuma mooy ñëwal sa bopp ci daara ji gis xale yi fi ñu doon jaaree boo fi jaaree da nga xam ne solution bi nga xam ne moo waroon a am mooy ubbi bunt yi te loolu ñi fi nekk yàlla dogal na am nañ xel ubbi nañ bunt ñu dem kon kenn gaañuwu fi waaw bu ko dee loolu mu leer ñëpp waaw daara la joo xam ne li mu tënku moom ñëpp leer na ko man damaa lii fanweer fan fanweeri morom yoo xam ne ñëpp ci daara ji lañ gën a ñu ngi ci biir dëkk bi yore ay daara kon ñun am nañ mettit am nañ mbetteel am nañ aw naqar waaye nag danañ ko muñ te xam ne ah, tool bu moo bàyyi moo baaxoo loolu wala nablu wannakum ata naalamal mujahidin minkum wasabirina wa nablu axbaarakum kon loolu rek la ñuy séntu wasalaamaaleykum wa rahmatullah waaw man naa cee digtal ndax ah, maanaam sëñ Cissé mi kenn ku nekk ci ñun war na koo gërëm ndax bun amoon fukk ñu mel ne moom gone yi kon jafe-jafe yi ci yoon di am di leen téye ci kaso yi jeex na man sama doom a ngi woon ci daara ji sama doom da daan sàlli du duma ko mën a gis fenn fu ne maa fay dem ci moom laa ko mujj andi te loolu dal na Baay Faal yu bari ci ñun dal Mbàkke Mbàkke yu bari doomi Mbàkke Mbàkke yu baree ngi fii ci biir daara ji doomi Baay Faal yu baree ngi ci biir daara ji kon bu daara ji amoon ngaañ duñ leen fendi dafa am nag nit ñoo xam ne dañu toll ci xeex lislaam waxtu wu ne xeex lislaam nag mënta romb daara ju toll nii ay téeméeri téeméeri nit di fi wàccee alxuraan di fi jànge ngay influencer gone yi ba ñuy dajji balaas te dañ leen koo digal rek parce que ñu bari ci koñ bi bu buñ taxawoon fañ war a taxaw kon lii am tey du am waan dañoo taxaw li influence gone yi pour ñu dem te loolu lépp li ko waral mooy xeex lislaam moom mii nag jalal nañu buñ ko doon yóbbu ci kaso sax yóbbaale ñu ñun daara ji dañoo bëgg nu bàyyil ñu ko nam meloon kenn bañ cee dugal kàddoom ñu bëgg góor jigéen ñaa ngi fi luñ mën a lijjanti la laneen ak laneen a ngi fi lu ñu mën a lijjanti la kon daaray alxuraan yi nañ leen bàyyi te leen a singili loolu mooy li nga xam ne moom laay wax jërë ngeen jëf. man la mbay Diop nekk fii si daara ji bokk si jëwriñ yi nga xam dañuy saytu njàngale mi tey sirwaaye xale yi di leen toppatoo bi may ñëw si daara ji maa ngi sama ñaari soxna laxas ñëw fi ànd ak moom di jàng xam-xam ba fii ma toll ba daanaka sama téere àgg na ma kon di ko jàppale ci liggéey bi yëf ni mu demee nii dong ni ko suñ waxee jurul jaaraat wut na sécurité sécurité bu doy lekk yi doy na lépp doy li am nag mooy tabaski jot na gaa yi xam nañ ne kenn nekku fi ñu siif daaj ji ñu tëb ñu bañ ñu gaañu ñu ubbi buntu bi ñëpp jàll ñu mag ñi ñoo siif daaj ji biñ dajjee ñuy tëb palanteer ñu xam ne lii ëpp na loxo ñu tijji buntu bi ñëpp dem ñu bëgg dem dañuy bëgg a toog am na sax ñu toog ñoo xam ne demuñu ñoom si seen biir sax ñooñu doon jàppale am na ñoo xam ñooñu doon jàppale ñu dimbali ñoom si seen biir ñi ñu tëj loolu loolu waaw xayma moom xale yi nekk si biir moom ci xayma moom lu mu gàtt gàtt juróomi téeméer nit ñi moom mat na moom lu mu gàtt gàtt waaye appartement yi kon gis nga ni ne bari na appartement bu ne moom loo bu loo ba loo boo dee xool maanaam benn couloir la bu dem du ay néeg ay sambur yuñ tëj du loolu loo ba loo benn couloir la boo xam ne yaatoon na boo xoolee six mètres quelque euh, waaye guddee na ay ay maanaam loo bu lu ay vingt cinq mètres yoobu xam nga waaw kay ay trente mètres boobu waaye wala quarante mètres kër gépp la jël rek hmm. kër gépp la jël léegi nga kon noonu la demee liñ war a def lépp def nañ ko nit ñi wax ne nit ñi faatoo yooyu it loolu comme sëñ bi wax na ko euh, kii gaañoo ko si néew yi ko yóbbuwoon hôpital man loos bi am xoos xoosu loos bi moo moo moo xaw a dëng ma nga sa hôpital foofu seen ñu téye ma ngay wax soxlam boo waxee moo lay moo moo lay kon kooku yaakaar naa bu dee woon du wuyu. kaneen xamaatuñ ko ci ko xaar boobu ba léegi waajur yaa ngi ñuy ne xale yi agsi nañ seen kër ñu bari ak nañ seen kër dem nañ xale yi bari taxawaalu ñi ñi àgguguñ dañoo dëkk fa sori àgguguñ loolu la affaire bi demee. waaw police moom dëgg la ñun ñoo leen woo ne leen ñëw ñu bañ leen wooyee yeex na ñëw sax waaye yàlla dogal mujj nañ ñëw bañ ñëwee fekk nañ mbir mi xaw naa dal ñu ñëw fekk ñu dugg ci biir laaj laaj booyee laaj ñu ñëw si sëñ bi laaj ñu ñu tont ko mën a subal si onze heures wuyu si leen loolu rek ñoom wax dëgg yàlla waxuñu fi lu ay defuñu fi lu ay noonu la demee ñun ñoo leen woo sappoor it biñ leen wooyee pour ñu jël si ko ñu mujj maa mujj obligé jël booy bi yóbbu ko hôpital waaye police moom ñëwuñu ngir jàpp kenn ñëwuñu ngir jël kenn dañoo ñëwoon ngir laaj ci ak jàppale ñu loolu affaire bi demoon man Ibrahima Gueye laa tudd maa ngi dëkk fii jàkkaarloog daara ji xew-xew bi lépp la ma fekk waaye nag yàlla def na ci sutura ba kenn deewu ci may wax ne ñi nga xam ne ñooy dégg information yi yi nga xam ne dañ naan daal am ñu fi ñu fi dee wala yooyu dara amu ci dara amu ci